Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a baaxoo di ñu topp ñu ngi fii nga xamante ni mooy nag euh, ci diwaanu Kër Massar comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, duñ leen bàyyil dara lu ne dinañ leen ko toppal ginnaaw bi nga xamante ni jot nañ teg loxo kii di njiital Pastef li nga xamante ni moo di manifestation yi fépp foo xamante ni dem nga fa rek yaa ngi koy faral di gis yéen a gis fii ci diwaanu Kër ma saar ci rond-point bi côté boo mën a tourner rek am na ay ndaw yoo xamante ni ñi ngi te li nga xamante ni nag moom lañ fi nemmeeku muy mbir mu doy waar mooy que ni daal ñu ëpp ci ñoom ñoo xamante ni gis nañ leen ay xale yu ndaw a ndaw a a ñoo xamante ni sax daanaka seen at buñ ko doon xool mën nañu ni ñu ëpp ci ñoom mën nañ bañ matal sax lu tolloog fukki at ak juróom mais ñu ngi leen di gis ñu ngi assi ñu ngi nekk ci li nga xamante ni moo di manifestation bi waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi li nga xamante ni gis nañ ko ñu koy doxalante ak ñoom lenn la mooy que ni ñi nga xamante ni dañu gën a féete ndaw buñ leen jàppee dinañ leen dugal ci ruq am nuñ def ak ñoom su ko defee yaakaar nañu ni ñoom su boobaa dina gën a mën a wàññi ko yéen a ngi gis côté bële ndaw ñi ñi ngi woy di ñëw di sànni ay xeer boole kaak di yuuxu yéen a ko gisandoo leneen li nga xamante ni tamit nemmeeku nañ ko ci mooy que ni mbir mi dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne dañu ci rax ndaxte euh, léeg-léeg ñu gis ñoo xamante ne nii ñu ngi ciy profito di jël li nga xamante ni mooy matérielu jàmbur loolu itam bokk na ci loo xamante ne nemmeeku nañ ko fii kon nag ñu woy rek ci kanam tuuti lépp loo xamante ne gis nañ ko daañ leen ko gis ngeen ki ngeen gis noonu nag loxo bi mu ngi naaj ci kenn xamul sax ndax ñi nga xamante ni ñoo rax ci manifestant yi ñoo ko dóor jaasi wala xeer moo ko dal waaye nag li am ba des daal li nga xamante ni jot nañ ko xibaar mooy que ni daal moom dañoo bëggoon a nangu portable moo tax ñu dóor ko jaasi ba loxo bi mel noonu yéen a ko gisandoo nag ñi nga xamante ni ñoo di manifestant yi bàyyiwuñu benn yoon euh, comme niñ leen ko waxee sànq rek ndaw ñi bëri nañ ci lool lool lool comme ni nga xamante ni itam noonu ngeen koy gisee ci image yi ñi nga xamante ni dañuy wàcc sax bëgg a ñibbi ñoom itam dañuy amee ay jafe-jafe bu baax a baax a baax ndax fépp foo xamante ni war nañ fa jaar rek day fekk boobu ñi nga xamante ni ñoo di manifestant yi ñi ngi moo tax ki nga xamante ni da ngay wàcc bëgg a ñibbi doo am benn pexe doo am fenn foo xamante ni di nga fa mën a jaar foo dem rek danañ la wax ñu ne la wiiril jaaral ne ndax yaa ngi ragal wala bokk yaa ngi calculer ni que ni foofu boo fa jaaree du baax wala ay xeer a ngi fa ak yu demee ngeen ko gisee ba tey ci image yi ndaw ñi ay pneu lañ doon taal su ko defee bu ñu taalee pneu yi rek saxaar si di jib ñoom it ñuy gën di wëy di dox di utali ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ndànk-ndànk muy li ngeen gis nii nag mu nekkoon situation bu doy waar boo xamante ni tey fii la woon muy ñaareelu fan eh, ci diwaanu Kër Massar ñoom itam ñuy nekk di génn di ñaxtu bu baax a baax a baax li yéen a ngi gis nii si image yi ñee di sànni boo leen xoolee ñu ci ëpp ay gone yu ndaw a ndaw a ndaw lañ ñoom ñooy nekk di sànni ñi ngeen gis ñuy sànni nii la plupart ci ñoom ay xale yu tuutee tuutee tuuti lañ waaye nag lu ñu tuuti tuuti tuuti terewul ñoom rek lañuy gis daanaka ñuy nekk di sànni gis nañu nag ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ñoom it am na ñu ciy jàpp waaye nag du ku romb rek ñu daal di day jàpp waaye képp koo xamante ne romb nga dinañu xool sa loxo buñ leen xoolee rek ñi nga xamante ne njort nañu nii ñi dañ doon sànni su ko defee ñu mën leen a yóbbu gis ngeen ah ñi nga xamanteni ñoo di force de l'ordre yi jamono ji ñi ngi doon dellu ginnaaw ñoom nag seen dellu ginnaaw googu outil renfort moo ko waraloon gis ngeen euh, lakk-lakk yi ak pneu yi nga xamante ni ñi ngi ko doon taal ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ñoom ñoo koy jéem a déplacé mu nekkoon situation bu doy waar nag boo xamante ni xew na fii ci diwaanu kër Massar gis ngeen da ngay dem sax ba ñun ñii sax dootuñu gisati dara dara ndax lépp rek day nekk li nga xamante ni moo di saxaar gis ngeen fii ci marché bi la woon ci wetu rom point bi ñi nga xamante ni ñoo di ay jaaykat te jige woon fa ñoom sax dañu obligé dem bay jàppale takk der yi gis ngeen fii ci maquette bi euh, ñi nga xamante ni ñoo di manifestant yi dañu dem sax bay daj palaasu jàmbur yi moo tax ñu ne nag kon mbir mi dem na ba am lu ci rax gis ngeen ñi ay jaaykatu portable lañ woon dañu tëjoon waaye nag am na ñoo xamante ne ñëw nañu fii daal di dajji seen place yi eh, di doon xool xëy na ay matériel wala leneen mu mel ni kon comme niñ ko waxee rek affaire yi am na loo xamante ni daf ci rax mu nekkoon situation bi nga xamante ni moo xewoon tey fii ci diwaanu Kër Massar lépp loo xamante ni rek nag dukkee na fii incha allah duñu leen ci bàyyil dara daañu leen eh, dëgtal lépp mu nekkoon eh, situation bi fii nga xamante ni nag moo di ci diwaanu Kër Massar.